s'est passé, c'est qu'en réalité, nous sommes abasourdis, nous sommes étonnés de constater que sur la façade principale de la ville de Ruisse, qui est une institution publique et républicaine, on a affiché, on a mis une banderole qui porte le slogan du oui. Alors on s'est dit, vraiment, ça c'est de l'injustice qu'il faut dénoncer. Donc voilà euh, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire dès à présent Dès à présent, nous excluons toute forme de violence. Nous ne sommes pas dans une logique de violence. Ce que nous allons faire, nous avons constaté avec le maire que la banderole existe. Nous allons nous réunir, nous, Front du Nom, en tirer toutes les conséquences, mais également nous, conseillers municipaux de la ville qui viennent de la liste de l'Ouest, nous allons nous réunir également pour tirer toutes les conséquences. Apparemment, le maire a mis à l'index le Nord, l'Ouest, par exemple, pour dire que c'est... L'Ouest n'a jamais eu de problème avec lui. Nous, on n'a jamais eu toutes les décisions proposées par le maire de la ville. Toutes ces décisions-là ont été unanimement et sans contestation, sans murmure, ont été unanimement adoptées par les conseillers qui viennent de l'Ouest. Et je vous le dis aussi, vous étiez là-bas. Toutes les décisions tendant à l'élection de Daoudonia, ces décisions-là ont été prises à l'Ouest. Notre salle de libération a été une salle, en tout cas historique par rapport à cela. Personne ne voulait, en tout cas, habiter ces réunions. C'est la salle de l'Ouest qui a abrité la réunion qui a conduit à l'élection du maire d'Aurignan. Je défie quiconque pour me dire qu'il y a eu une autre réunion ailleurs. Toutes les coalitions, toutes les coalitions étaient dans cette salle et c'est là-bas qu'on a pris la décision de porter euh, Daurignan comme candidat au maire. Voilà. tey jii dañu am njaaxare ak mettit ñu xool ne dañu ñëw ñu gis ci mairie bi mu am banderole boo xam affiche ñu taf ci ne dañuy wax waaw ci référendum bii di ñëw ñun nag ñun ñoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy wax déedéet te ñun ñëpp xam nañ ne lu mel ni maire yi ñëpp jàpp nañ ne dafa ne loo xam ne ñëpp a ko bokk dafa nekk loo xam ne lu républicain la dafa nekk loo xam ne institution publique la warul mën a jaar fële di bàyyi fële loolu su amee dinañ taxaw ñu dénoncé ko ñu wax ne lii jaaduwul parce que ñun xëccoowuñu pour di taf ay banderole non ci mairie bi mairie bi lañ wara respecter d'autant plus que aussi mairie bi conseil municipal yi nga xam ne doon lu ouest am nañ ci wall donc defe na né lool moo ñu metti moom moo tax ñu taxaw filé nan ngeen fas def euh, li ñu fas def modi ñun lepp lo xam dafa am violence bokku ñu ci lepp lo xam dafa am xéxo ak niro bokku ñu ci jàmm la ñuy duggee ci élec yi ci ci référendum bi te bu soobee yàlla dinañ ci génnee ak jàmm ñu gañe ko donc waxuñu ne nañu xeex waxuñu nañu saaga waxuñu nañu yuuxu li ñuy def mooy dañuy dellu ñu toog ñu def suñu réunion ñun front du non bi ñu xool yeen décision la ñuy jël beneen wàll bi am na ay conseils municipaux yoo xam ne tamit ñu ngi jóge ñu ngi bokk ci front du non bi ñooñ tamit bu ñu demee dina leen dajale ñu toog ñu waxtaan ñu xool ban jeexital la ñuy am ci mbir mu ñaaw mile le euh, apparemment maire bi nee na daal waa Ouest ñooy posé problème. waaw loolu defe naa ne euh, daf ko wax nii rek man man defe naa da ko wax ci maire mais mosuma gis benn dogal boo xam ne am na ko indi ko ci maire bi te waa Ouest jiitewuñ ko mosumaa gis tamit benn benn xëccoo bu am ci conseil municipal yi te waa ouest porté où combat bi défendre ko mom wax lañ war wax donc lolu dama defe né daf ko wax ni rek peut-être que façon politique la motax mu diko wax mais je dis donc que mom ba muy nekk maire décision yi ñu jël yépp ñu ko jël ci ouest bi amul kenn ku nang won fu ñu défé réunion dañ ko tumuranke won ouest lañ ko commencé ba ci fin bi luñ ci fekk fekk ñu ci yalla def ñu fekk ñu yalla def luñ ci fekk mom modi mom moy nek maire ville bi donc ñun amuñu leneen lu ñuy wax lu xalaatal ko réussite am amul dara loo xam ne mos ku ko bëggoon dem ci kawam ci ñun ngay jaar conseil municipal yi ñëpp journal yi ngeen fa nekk gis ngeen ne ñun ñooy taxaw ñun waa ouest kese laa wax ñun ñooy taxaw bu buñ ko waree défendre ñu défendre ko xamuñu ba xam am na yoon wala amul yoon.